mais su ma jógee ci loolu euh, ba ki démb kii di Bombardier dañ koo gis mu demoon doon defi MMA komba bi ñëpp seetaan nañ ko combat bi yàgg na wax jàppoon nañ ko fi mu blessé fi feebaroon fi boog di moins ñu jàppaat ko mu nekk événement boo xamante ni Sénégal gépp nga ko doon ñaanal te ñëpp yéene woon nañ ko ndam mais ñu dem gis combat bi bi nga seetaanee combat bi nit ñi neen dafa gaaw ñi neen dafa yomb ñi ne nañu détails yu bari daal maa ngi koy dégg bi nga ko seetaanee naka nga jàngatee combat non bi ma ko de man wax dëgg yàlla dama part personnel mën nga laaj sama ñaari soxna yi nekk si kër gi wala nga laaj sunu waa kër Bombardier bi ko waa ji dóoree mu daanu man dama mel ni man lañ dóor ma daanu ndax lu mu bon bon man sénégalais laa quoi te sunu drapeau réew la demoon pour xeexi ji am lu ma mett torop mais Bombardier MMA wu ko parce que màmm bi muy màmm heure bu ko defee tubaab da lay jàng tubaab du tëb tëb rek jël la. dañ koy jàgg-jàgg ndax bombardier mënu dèjà rek dèjà biñ ko fësatee bi ko waaj a pàddee la perdre contrôle boobu xam nga loolu la war a def reculer ñëwaat. dellu ginnaaw dellu ginnaaw ñëwaat su dee benn pas trois pas tegaat ñëwaat pour côté bi mën a dellu si waat mu baax mais dafa forcé dem waaj a dolliwaat pàdd bi. bombardier mën naa ne bi ñu koy dóor crossé sax mën naa ne dara nekkoon ndax tànk yi taxawatul ndax pàdd bi moo métti ñooñu soo xoolee li ñuy entraîné suñ la pàddee da koy yëg te tànk mooy nit sidit bi day yéeg ba ci bopp. ma am lu ma metti torop torop torop torop nag wax dëgg yàlla. mais euh, ay mbër daan ñu dem bëre ji MMA ndax gis nañ ci Reug gis nañ ci Bombardier gis nañ ci keneen ak keneen mais bi bi bi bi chute bi amee ñu ci bari commencé nañu génn di ŋàññi nee nañ mbër mënul def MMA ñi naan di fi gis mbër ñu dóor ko mu dee ñu ci bari di génn di waxee benn façon bi est-ce que daa jàpp nga ni mbër yi fi nekk wala boog ñi ngay gis. mën nañoo dem def ji MMA parce que MMA ñun suñu làmb ji da gis dañuy dóor daw jàpp dóor daw jàpp te ñee dañuy dóor tànk dañuy wéq dañuy conc lu ci nekk lañuy def est-ce que gis nga ne mbër yi mën nañoo avancer ci MMA bi. ak làmb tey jii mën naa ni làmb 2 pour cent la ci MMA. 2 pour cent cent la. loolu dafa bariwul. ñee dañoo complet sport bi yëpp la ñu xool ki daan bombardier bi mu paree nga xool sport yi mu jaar yëpp yi ñu lay wan yëpp MMA dafa complet gars yi su fekkee dañoo bëgg a def MMA dañ koy teel préparé teel ko liggéey teel cee nekk mais bu xaalis bi bari rek ba ngay dem di toroxal sa bopp gis nga li daloon rek rek waa laalu ko sax romb la def parce que jël na fa ay coup de jël fa ay bit ay baraada de volet yoo xam ne yu doy waar waa laalu ko sax foo xam ne dafa mujjee sonn dafa épuisé sonn tëdd ne dañ ko dóor te dóoruñu ko ñun ñëpp xam ne ñun ay sénégalais lañ coup bi dalul mais rek boobu bàyyi na. parce que lim mbën yëpp def na ko song na jéem a dóor naax pour bëri yëpp waa di ko dóor ay coups de fii dafa metti mais li ma leen mën a xamal mooy leen MMA du ay caaxaan te mbër mu ko ci jàngiwul wala ku ci yaakaar ni bëre bi rek moo la ciy génne damay ragal ñu rey ci mbër te tànk rey ñu si mbër nag duñ ko bàyyi. ay mel ni mi. billaay wala noo non ñii baaxuñu yow xoolal waa yow rek koo xam ne ay terrain la doon xëcc ñun ay avion ñun sénégalais dañuy tees nekk si salle bi di laal ay biceps ay poli xola bombardier di wane wu ndakate kee mu ngi def lu gën a yéeme si na nëbb ko boppam bàyyi ba rey naroon ko rey ba pare doog ko génne xam nga ne kuy xëcc ay avion di téye ay pois cent poids quatre cent kilos di daw ak moom di téye ñaari oto di yëkkati di ko liggéey ay lombeer boo fi yónnee sa mbër yóbbu ko nag kañ dem xëcc avion bi danaa def ma maa seetaan benn vidéo boo xam ne bopp terrain la waa ji jël téye di ko xëcc si kaw raay mu ngi nii pare ak oto douze roues yi te conteneur bi ak conteneur bu ñu chargé ba pare mu téye ko di daw ak oto bi kooku tamit dafa doy waar kooku nañ ko bàyyi rek kooku du nit régoolu Père Gaston kooku du nit jarul ba gaañ na bombardier dóor na ko mu daanu ba léegi reewul manifesté wul manifesté wul parce que amul lu ko neex non xam nga lu tax manifesté wul defu da xam naa la mu foogoon ak la mu bëggoon amul ndax ñooñu su ma la waxee benn affaire ñun on est ay africain lañ ay sénégalais lañ xëy na sunu entraînement sunu kattan la ñuy yóbbu mais ñooñu dañuy doon ay drogué ñooñu dañuy doon ay dorogé yoo xam ne seen biir dëkk nga leen fekk mën nañ leen leen defal loo xam ne ni mën nañoo mën nga leen dóor deux cent coups duñ koy suñ la dóoree nga mel ne àdduna lañ la dóor ñooñu duñ ay nitu kese soo xoolee sport yi ñuy def loolu entraînement rek mun la ko def loolu ay dorogé lañ. loolu bëreel quoi ñun duñ ay ngaaka quoi. mais bombardier na. kon nan ngay wax mbër yi nga xamante ni seen xele ngi ci dem ci MMA. ñi si nekk daal comme xale nga xam ne ñu ngi ciy doog ay rëg-rëg ay Ama Baldé yi may dégg ay Siteu ay Boy ñaa ñoom ñooñu nañ si gën a entraîné waat bu baax rek balaa ñu si gën a dem ba sori ndax Bombardier kii ñu ko booleel nii du question de palmarès moo ko fa boo yóbbu de gabari moo ko fa yóbbu. gabari Bombardier de dañuy waxante dëgg rek gabari bi lañ xool dem boole ko koog mais su fekkoon palmarès Bombardier li mu waroon xeex sa MMA xeexagu ko bay yegg foofu dem bër dem ñu përët ñu boole laak trois combats la def ko xaw ma kaat ñu boole kaak l'homme le plus fort du monde. xam nga biñ la waxee loolu rek war nga mën a xoolaat sa bopp quoi l'homme le pour biceps bi mu yor rek toll na ni bombardier cent quarante kilos la nga koy biceps benn loxo dafa doy waar quoi.